bila thaman ishtara arraxiisu bi agla ku am loo mayul sa bopp sàggane ko ba jaayee ko lu dul njëgam bés dana ñëw nga jënd lu yomb ci lu dul njëgam développement bu ñu koy wax faw nit ki xam-xam fan yii maa ngi gis débat bu am solo ci télévision yi ci Barça ak Barzax résoudre nag ndax nit bu fekkee ni dafa juddoo ca kaw ka commune département région xamul capital génn dem ci réew mu gën a développé réewam fi nga toll yow ci wàllu développement moom fa mu ne bëtam dafa jël loolu te la ko pauvreté may ci réew moomu ba yëgu fa xiif ak feebar ñàkk pauvreté ci biir réewam may ko loolu kon kooku ban communication bu stratégique nga mën a teg pour convaincre ko ba mu dellu si waat ndax fi nga toll di wax moom yow ci sa réew bëtëm la mu ko may doonte sax ci pauvreté lay dundee ca réew ma di fa sàkk lu mu amagul te bu bëggee faju faju te du fanaan ci mbedd mi ngi daw ci tali yu baax courant du fa coupé ndox ñàkku fa dund ñàkku fa donte amagul la mu bëgg waaw loolu boo ko bëggee wax ne ko bàyyi ko fa dellu si ci li nga nekkoon kooku du neex a dégg problème bi loolu lañu ñu war a saafara ba noppi waxuñu kenn bu mu dem waye fi nga fi nga bañ ñu dem fa da nga leen di laaj ñoom lu ñu am lan la nga proposer benn politique boo xam ni kat mën nga dajale fukki nit yu am xaalis ne dañu bëgg a jël gaal boo daj boo dajalee xaalis bi ba mu mat nga leen ah man de xayma naa ne am ngeen fukki million waaye fukki nit yu fi dajale fukki million dinaa leen dimbalee vingt millions te ngeen toog fi waaye li ngeen tooge nag ci sama loxo lay nekk man maay définir politique boobu waaye bul dem te joxuma la lu tax nga toog kooku nit mënu ko dégg bi ci des mooy da ngay gis ni léegi Europe boo ko jaaree ci yoonu suuf Saint-Louis muy buntu Europe ci Sénégal xaw ma beneen yoon boobu foo ko mën a jaare daal moom foofu nga koy jaar dugg ci li ko dalee Ndar jàpp Louga Louga bi nga xam ni raison euh, dab nañu ci Léopold Senghor mi doon wax ni diisoo ak nappkat yi diisoo ak baykat yi diisoo ak sàmmkat yi

diisoo ak sàmmkat yi Louga Daara quatre-vingts léegi nag li ëpp ci sunu réew ceeb daal di féete ci région du fleuve géej gi di yéeg dex gi di yéeg buñ ko tojoon tooyal ci àll Louga boobu yépp xale yooyu di dem ci nga ni leen lu ngeen am ñu ne ah ñun de famille lañu waaye bi ñu dajalee kenn ku ci nekk yor na un million cinq cent bu mu waroon tukki nga di leen kaay leen léegi man dinaa toj suuf si dinaa toj ndox mi koyal suuf si encadré leen ci ban façon kuy toppatoo gàncax doo dëkk ci taax li des ci àll bi président génne eaux et jël masalan par exemple trois cent hectares jox la bien aménagé gox bu nekk la fa doon garab ñu war ko reboiser lu dugalaat fa bu nawetaan jotee gox bu nekk la ñu am ci ASC ñu yóbbu leen foofu tabax fa ay saal yu mag muy saal yoo xam ni buñ ko defaree kenn dootul gàmmu ci mbedd kenn dootul sabaru ci mbedd kenn nga ko dëkk bisum ci mbedd 300 hectares mën nañ dafa defal ay saal yu mag yoo xam ni boo fa doon toj Sénégal kenn du ko dégg bu ko defee ñoom ñu di ko luwe bu nawetaan jotee nga dajale fa ASC yépp seen maire toog seen ministre toog directeur yi ñu am toog encouragé waxtaan ak ñoom jox leen jeu de xaalis ba buñ fay jógee nag kenn ku ci nekk nga fexe ba jox ko dix mille ne ko sa activité nawetaan na ci reboisement bokk bu ko defee ñii feebar nekk ci hôpital kuñ ci faj ña la del dox fooy doxe kon jardin botanique bu mel ni bii nekk ci ànd yu mel noonu la ñu war a reproduire ci réew mi génnee eaux ci taax yi yóbbu leen ci àll bi jox leen nit ñu encadré leen oto yi jóge Maroc di fi indi mandarine Tiwaawan pour jàpp ñaay yépp suufu mango la waaw jële seen mandarine ñëw tuur ko ci suñu réew wëlbati ko waroon a yóbbu mango yooyu ñu bàyyi ko muy dox nit jóge fii ci yow ma yoro nga Habib ba yor deux Thierno yor trois keneen yor quatre ñu jëm Daara Jolof pour uti nag amoo banque boo ko def amoo hôtel boo fanaan nga dem bàyyi ko ci loxo ñiy jaay liquidité nga dem fa fekk ku yor deux cent sept de bis bu ne mu gàddu yet sol daal topp nag bi di dox mel ni ko amul lu mu lekk te li mu yor alal la mënul naan meew mënul defar beurre mënul defar fromage foofu la débat yi nekk waaw dañuy seet ñun li ñu am te mu nekk fi te nekk ci suñu loxo ci loolu ngay développé sa réew waaye la keneen am te jotaguloo ci boo ciy def sa xel te jotaguloo ci boo ci développé sa réew nit boo bëggee lekk da ngay seet li nekk ci sa loxo loo ci mën a jënd foofu la lekk commencé waaye mënoo yor lu dul ñaar téeméeri bëgg xalaat ceebu yàpp mënul nekk bi ci des ñu fexe ba aussi problème mu yi ñu doon wax taalibe du jàng mercredi soir te may wax taalibe mooy ñun du ñu jàng jeudi. du ñuy jàng de vendredi matin te yow ki la war a toppatoo moom bés yooyu ma nga ci bureau ba kon mënoo xam ki nekk ci mbedd bi ak ki nekkul ci mbedd bi samedi ak dimanche ngay noppalu jamono bi ngay noppalu ki ngay toppatoo moom ma ca daara ja waaw kon lu gënoon bu dee ci ni taaw tiwaawan bi ngay jël nga defal ay centre de formation nga seet corps de métier yi nekk biir ICS nekk Taïba nekk Diogo nekk phosphate Lamlam nekk phosphate de ñu jël métier yooyu di ko fa jàngale bu ñu paree contrat bi daara ji di am wala jeune bi bi ñuy am ak ak ak industrie yooyu mooy chaque fois bu fa nit retraité foofu la jëlee nit yóbbu ko foofu directement embauché moment boobu nag xale bi xëy na du àgg ci maturité pour gérer xaalis mais bu boobaa dañuy définir benn politique boo xamante ni tey mën nañ ni ah meeru Tiwaawan jox ma danga may jox mille hectares mille hectares yooyu da ngay dem nga nekk en collaboration ak banque BHS mu defar ay logement bu defaree logement yooyu xale bi salaire bi ñu koy njëkk a fay dañ koy proposer ni faaw nga am kër kër gi nag ci do ñii lañ la koy joxe ñii lañ koy daggee ci sa salaire boo ko defee xaalis boobu du ko mën a yàq ndax am na fu mu jëm commencé na liggéey commencé na am kër te liy fay kër gi mi mi ngi koy mu di ko fayeeku loolu bu amee. doto gis ko taxawal ci mbedd parce que automatiquement bu fekke ne amna métier nga rassurer ko ni métier bi bu ko jangé automatiquement ci industrie ci benn la ci wala a liggéey xam nga ni salaire am koy xaar kon kooku di nga am di nga dem ba am ay modèle waaw yoo xam ni fa wa ahsanul xaaliqin danañu mën a jël réew mi te fekk danañu am diine am jikko parce que li xew yépp am joto ko waral سورمان شيخ سيد الحاج منصور رضي الله عنه دفع ام بين جمل بين نيت امون ميبل لول نيتال بوكو يالا ماي دوم بوكو موم لا كوي تودي يالا ماي كو نكو لا كو جابار جي وسين ريك مو داو خبار كو من كو اي نغا فخي بوكو مو ام جوتان نغا فخي بوكو مو ام جوت motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax waxam bu reey bi ne inna allaha yarzuqu al abd ala qadri himmatihi waaw volonté ni fi xam-xam a ngi ci réew mi bëgg-bëgg baa ngi fi waaye nag ak lan te nag yooyu bu amul nit ñi bu ñu mën a cotiser pour fay impôt pour ñu mën a liggéey réew mi parce que nit bu fekkee da nga bëgg mu fay impôt da ngay fexe ba mu am liggéey di am revenu parce que daayira ah ku ko samp te bëgg a gàmm faaw nga kotise boo cotiser wul fooy jëlee nag fooy jëlee chaise fooy jëlee tente xëy na du ñàkk soutien kon pour sa doomi réew di cotiser pour nga mën a am lampe mën a am courant bu doy mën a am ndox mu doy mën a am dëkkin bu dëkkuwaay bu baax da ngay fexe ba ñi fi nekk am liggéey te pour ñu am liggéey mooy nga créer ay centre de formation ba pare ñu nekk euh, industrie yi fi nekk lañ fay liggéey ñu di ko jàngale foofu nga xam ni yow formé nañ la tey ci industrie bii nga war a jëm buñ demee tey ba fin d'année jot ñu ni kat am nañu fukk yu war a retraité kii ci wàllu lii la kii ci wàllu lële la ñu dugal dossier boobu fekk am benn promotion buy génn ñu jox ko ñële yooyu moom mooy yi fi nekk moo gën nit ñi ñëw samp fi seeni usine samp fi seeni industrie dema dema dema dema dem dem ba daanaka la fi nekkoon démb ak bërki démb mooy li fi nekk mooy jël sa doomi réew ñu mujj doon ay surga waaw te loolu li ci gën mooy da ngay dimbale samp koo xam ne mënu laa rëcc koo xam ne ci réew mi la dëkk nga jàppale ñooñu ñoom it nga taxawu leen nag di seet la tax nga jàppale leen est-ce que ñi ngi koy def wala déet تبين خدمة البلد لله متاح عربي وحدي فكل من اهتم بأمر وشمر على ساق الجد وصل إليه ولا شك nit nag faaw nga am objectif mën a définir sa ay priorité définir sa ay xayaaraat tarkiis sa bopp nag te la nga tànn mu gënal la loo mën a am liggéey kenn ko xeeb waaye nag faaw xam-xam am njàng am faaw tal am faaw tal am waaw kon bokk yi man jadda wajada ku làmb daj man zaraa xasada ku ji góob mbay mi ci yàlla defee subvention ci ndox mi parce que gis ku bay ba pare yàlla jox la facture ci ndoxu taw déedéet nga jël sa dugub suuf ci àll bi yëpp saaw ko ba mënatuloo koo for pepp par pepp yàlla wàcce ndoxam trois mois dajale waal dund yëpp ko ci ay gub nga di ko seen ci kaw tool nga xolli sa gerte ba mu set togg ko yaa ko xolli dindi xolli togg dugal ñaari doom di ko def ko tool bi jeex lépp suul ñetti weer mu taw. suñu borom tabaraka wa taala neena dekké nga dekké fekk fa gerté gi ñu xolli woon té yalla neewu la facture ndox ba ngi nga dekk gerté gi mu tooy xepp mënoo jël wantaay di ko upp yalla indi ngelaw lu tàng jër mu upp ko ba ngelaw la ba gerté nga wo komm ci biir mu ne la baccal nga bacc génné sa gerté génné sa ngor waaw fas bi doon sonn ci tool bi boo jëlee àqam lekk ko fooy bayee sa gerte bu la àqam jàppe ndax ngooñ ma xar yi koy jaay moomuñu ko fas bi doon sonn ci tool bi moo ko moom yooyu tamit ñu koy moytu ndax nit dana tooñe fu mu yëgul